ومسكن سليم من الفجار ومن على الآل بماء جاري واجعل ربي مننا معجلة جالبة لمننا مؤجلة يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فرط من سواك Comité initiative pour l'eau de Touba ñu gën ko xam ci Maawu Rahmati ñu sos ko ci atum 2006 ginnaaw ndigalu Serigne Saliou Mbacké mi nekkoon xalif général des Mourides sa booba jamono Maawu Rahmati bi di wéy liggéey bi ba mu tàbbi si loxow sëriñ Moustapha Dieng mi nekk ca bopp ba ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides liggéey bi nag mu ànd si ak sëriñ Abdou Khader Mbacké ibn sëriñ Cheikh Assou Fall fegoog sëriñ Moustapha Mbacké ibn sëriñ Moussa Bassirou di ñaareelu toftol bi maawu rahmati ëmmam di njàppandal ndox mu sel si biir Touba waaye nag yaatu ñëpp mën see jote ànd si ak bànqaasu nguur gi nga xamante ni mi ngi ci wàllu hydraulique si biir Touba Maou Rahmati taxawaayam si indi ndox mu sell si Touba doon na lu mucc ayib ndax nag firnde am na ci daan nañu nemmeeku ni jafe-jafe ndox daan na am waaye nag tamit bi mu ñëwee gis nañu nii mbir mi gën naa ñëw ndax sax daan nañ toog ay ayubis ndox du am askan wi daan dem di rootaani waane Maou Rahmati mën nañu wax nii indi na ay saafara si yooyee situation émission bi nga xamante ni mi ngi koy amal bokk na si saa su paan amee si forage yi nekk si Touba li muy njëkku sàkku si nguur gi mooy ñu wut pompe su ko defee ñoom ñooy yor liggéey bi ba lépp mën a yemb seeni waaye tamit yaatu na loolu si wàllu réseau hydraulique bu Touba ndaxte mbooleem fu tuyau yu bënn nekk ñoom ñooy dem réparer ko su ko defee ndox du mën a yàqu waaye tamit askan wi dinañu mën a am ndox saa su nekk seeni ay équipe yendaluñu fanaanaluñu ñoo ngi si terrain bi di xool réseau bi di koy saytu saa su nekk tey ji bi nemmee ni Touba am na ñaar fukk ak juróom-ñeent si ay forage ak tamit lu tolloog junni ak ñaari téeméeri kilomètre taxawaayu maaw raxmat yi si saytu bi ba lépp mën a jàppandi loolu doon lu mën a teg loxo si wàllu entretien bi maaw raxmat yi dina ànd sax nag ak unité de maintenance hydraulique de Touba di kuréel gu fi toogal nguur gi di saytu wàllu forage yi waane Maou Rahmati bàyyiwu leen dina leen gunge ba liggéey bi mën a antu sa nañ ko bëggee ba tey tamit maawu rahmat yi saa su nekk dinay wàcc si terrain bi dem di diisoog askan wi wax ak kilifa yi nekk si gox yi ngir nag ñuy mën a saytu branchement yi képp ku bëgg def robinet sa kër nga mën si déggoo ak ñoom ñu mën la teg sa yoon su ko defee réseau bi kenn du ko mën a salfaañi ba ndox du am benn gàllankoor maawu rahmat yi dina jël si gafakam di jàppale unité de maintenance hydraulique bi nga xamante ni moo fi jogal nguur gi si wàllu carburant saa sunu waree dem def intervention di leen di tamit yembal ay pièces de ba tey ñu nemmeeku tamit euh, Maawu Rahmati saa su courant coupé ba machine yépp taxaw te sax mën naa indi ay gàllankoor si forage yi ba distribution bi du jaar yoon askan wi mën si am ay jafe-jafe ñoom ñooy yembal carburant bi jëm si groupe électrogène yi dawal forage yi ba tey am nañu beneen taxawaay bu am solo si dëkk bu sell bi di Touba nemmeeku nañu ni màggal Touba askan wi ñëw dina takku boole kook gox yi itteewoo ndox si biir Touba takku nañ loolu tamit su ko defee Maawu Rahmati indi solution si limu mu gën a gaaw a gaaw yembal ay camion citerne tasko ko si mbooleem gox périphérie yi ñu mën a nag jàppale population bi ñu am ndox mu set sell si jamonoy màggal Touba lii nag doon mission bu ñu yàgg di def te nag saa su nekk askan wi di yëg njàppandal bu ni mel jéego yu am solo yi nga xamante ni Maawu Rahmati mi ngi koy def ngir nag saafara ñàkkum ndox si Touba ak tamit yembal ndox mu sell mi ngi ci ànd ak ay partenaire am yi nga xamante ni saa su wootee nu ñëw ñu si mel ni El Hadj Serigne Gueye El Hadj Mandiaye Diongu Serigne Mboup CCBM El Hadj Serigne Seck C3S Moustapha Sow opérateur économique ak daayira yi nekk ci diaspora bi nekkit ci biir réew mi ba tey tamit am na ay association yu leen di jàppale ñu mën see nemmeeku Touba sa kanam association ànd taxawu Madiana ak it kuréel gu nekk xayra di waa kër Serigne Modou Boussa Dieng ci njiitalu Serigne Djili Mbacke mi xalifaam taxawaay nag bi ñu am ci ginnaaw Maawu Rahmati tax na kuréel gi mën a taxawal lu tolloo ñaari téeméer ak juróom fukki kilomètre yu yokku ci ci bi ak it ay forage forage yooyu nag ñu mën see lim bi nekk ndigal ci Nindi Daaru Rahman 2 ci Bokkatul Mubarak Daaru Salaam Darmo Daaru Marnaan madiaana bi nekk si université Cheikh Abdoulahi Laha Maawu Rahmati fas yéene lawal jéego yi loole waral mu gën a yaatal liggéey bi ba mu mën a nag jote si ñëpp ñëpp mën see def seen jaayante ubbi nanu ay compte si mbooleem banque yu mag yi nekk si réew mi ñu mën see nemmeeku CBAO Banque Atlantique Ecobank BICIS ak SGBS Maawu Rahmati liggéeyam bii nag muy amal ñu ngi ko teg nag si anam yu leer te wóor bu dee lu aju si wàllu décaissement chèque buy mën di génn si banque yi dina am ay signature yu wuute ba tey Maawu Rahmati yemul foofu ginnaaw bi mu jotee ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ubbi na tamit beneen compte ci plateforme transfert d'argent yi lu su mel ni Free bu ngeen bëggee tàbbal seen jaayante def seen contribution si ni mu gën a gaaw a gaaw mën ngeen ko envoyé ci Free Money di dièse 150 étoile 4 étoile 6 étoile 4700 dièse dièse 150 étoile 4 étoile 6 étoile 4700 dièse Maawu Rahmati nanu ànd sakkanal ndox mi تدفسي أنا الذي لا تميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا